soo bëggee am leeru xol nga am ngëm gu dëgër ci sa digg sa borom nga am tawfiq ba dara du la bët di la jëmee lenn lu dul sa ndigalu boroom tabaaraka wa bari lal looy zikkar laa ilaha illa seytaane dina la sori lool seytaane di nga mucc ci moom yeneen yi nag dama ko jëllale moom muy laa ilaha illa na ànd ak sell ak dëkku boo ko commencé def di nga yëg ci sa xol tawfiix ba boo nekkoon ci ak caaxaan wala bu ci nit nekkee sax daf lay déranger muy laa ilaha illa nga di ko bari liir nañ sëñ Tuubaa ci mbindam mu ni lu gën ci lu nit ki di wax mooy jullit bi mooy yow mi nga xamante ni yaa ngi gëm yàlla gëm yonent sallallahu alayhi wa gëm malaaka yi gëm téere yam wàcce woon ci yonent yi gëm yonent yi gëm ndogal gëm bis yàlla ngay wax la ilaha illallah la cay njariñ laa toxam kenn mënu lim wala nga di ko tàkk ndax bari boo teewloo vidéo bi tàmbali ko rek nga koy def nag li waj illaahi taala ngir jëmmi yàlla ndax nit looy def bëgg ca yàlla danga koy def ngir yàlla waaye boo ko defee ngir lenn loolu mën nga ko cee am de ndax yàlla daa yaatule waaye boo ko zikaree ngir yàlla di ci gis tawfiq yoo xamante ni di nga ne lu tax teelu ma ko def donte ne bés bu ne téeméer la sax bu la neexee baax na insha allahu taala yal na yàlla jubal ñëpp tàppe xolu jullit yëpp ci orma yi wa sallam